niñ ko war a sàngee ñu ne la gën mooy ñu def ko ñetti morso ñetti sër am na nag ñuy def tubéy def mbubb mu mag def kaala def chemise loolu yëpp dagan na waaye dañuy sàmmoonte rekk muy tool bés bu nekk muy tool muy tool nekk juróom wala juróom-ñaar wala mu nekk ñett chaque jour daal nañuy sàmmoonte muy tóol nañuy sàmmoonte aussi lañuy sàng néew bi na nekk lu weex na nekk yére bu weex ndax loolooy ngëneel buñ ko sàngee ba pare dagg ci mbalaan mi buum yuñ koy takkee takki mën naa nekk ñett mën naa nekk juróom mën naa nekk juróom-ñaar moom tamit na tool takk yi mën naa nekk ñett mën naa nekk juróom mën naa nekk juróom-ñaar su ko defee buñ ko takkee ba pare walla balaa ñu koy takk sopp nañ lépp lu ñu jële woon ci néew bi te mooy yi ñu daggoon bi ñuy wàññi naanu yi te mooy mustaas yi wala bi ñuy peñe sikkim bi wala bi ñuy peñe kawar gi wala biñ ko doon létt di ko mëgg kawar yooyu nga xam ne ñoom ñoo bàyyeeku ci néew bi ñu delloowaat ko ci biir mbalaan mi ñu bañ ko fa bàyyi mbokk jullit yi maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ñi nekk ci morgue yi di sang néew yi wala ñuy yor caabi morgue nañuy bàyyi xel lu baree baree baree bari am na doomu aadama yuy taxawaalu ñu leen di tuddee ay jabarkat ak ay sëriñi tariyaax dañoo bëgg bagage yu bàyyeekoo ci néew léeg-léeg nga gis ku ne la may ma saabu bi nga sangee néew bi léeg-léeg nga ku ne la jàmpe bi desut yére yi desut parfon bi desut bagage witteen yi desut dama ko soxla dara njabar kese kese kese kese moytandiku leen yóbbu seen néew ci morgu ngeen bàyyeekook ak nit ñi nga xam ne ragaluñu yàlla amuñu diine ñeme nañoo dagg ci néew bi dara ñeme nañoo am téere dugal ko ci néew bi billahi allazi laa ilaha illa maa ngi leen di waatal ci yàlla mi nga xam ne moom lañu bokk sang naa ab néew man mii bi ma demee bay waaja pare di ko sang nga xam ne lal naa morceau yi ba teg ko ba pare ba commencé def première sër bi ñaareel bi mu des ñetteel bi mbokki néew bi ñëw ne ma may ñu tuuti ma taxaw ñu ne ma noon da ngay génn ma daal génn bàyyi leen ci biir diir ñu woo ma ne ma bismillah ma ubbi dugg bi ma xoolee dënnu néew bi maa ngi gis ñu def ci benn téere bu xonq ma daa jël samay dàll ne leen duma ko yeggali ñu wax ba sonn ma ne leen duma ko yeggali lii ngeen def fi xaw ma ko duma ko yeggali noonu laa génnee bàyyee leen ak néew bi ñu yeggali la ca des kon nañu lu ñu vigilant bu baax ñu xam ne mbir mi jaamu yàlla du du am po waaye dafa am ay njabarkat am ay musiba yoo xam ne njabar mooy seen métier ci lañu dund seen taraanga yépp ci àdduna ci njabar lañ ko yor am ñoo xam ne ci loolu lañuy dox guddi ak bëccëg waaye nag alaa yazunnu ulaika annahum mabuusuun li yawmin azim ñooñu xanaa xamuñu ne bëccëg a ngi ñëw danañu dekki taxaw ci kanamu yàlla musiba yi ñu nekk woon yëpp yàlla dina leen ko tegal seen kanam ahsaahu llahu wa nasuur yàlla enregistré na ko ñoom fàtte nañ ko doomu ndeyu mbokk yi buñ ko sàngee ba pare buñ koy génne tànk yi lañu war a njëkk a génne nañuy bàyyi xel chaque jour néew bopp bi du jiitu tànk yi jiitu tànk yi ñooy jiitu ñooy tolloog boppi nit ñi moom néew bi bopp bi moo war a féete ginnaaw nit ñi bopp bi warta jiite teyu néew bi buñ ko doon taxawalaatal su fekkente ne bopp bi moo nekk ci kanam ñu koy taxawalaatal kon bopp bi mooy samp loolu moo lay wan ne tànk yi lañu war a jiital ñi ko téye tànk yi la jiital bopp bi nekk ca ginnaaw mbokki jullit yi maanaam kon fi tànk yi féete ci kees gi foofu mooy jiitu su ko defee ñu daal di koy teg ci barab bi ñuy jullee ñu wax imaam bi ne ko pare nañ mu ñëw bu dee góor bu dee góor la walla bu dee jigéen bu dee góor ci bopp bi lay taxaw bu dee jigéen mu taxaw ci digg bi ci wetu mbagg yi walla ci wetu dënn bi moo tax sharia du xel bu doon sharia xel la dañ naan bu dee jigéen mu taxaw ca bopp ba bu dee góor mu taxaw ci dënd bi ci digg bi waaye dañ ne bu dee góor ca bopp ba lay taxaw bu dee jigéen mu taxaw ci digg bi allahu akbar islaam du xel looloo tax ki nga xam ne moom mooy jiite day laajte ba mu xam ki faatu lan la su fekkente ne moom sangu ko woon bu fekkee da koy jullee mu xam fi mu war taxaw mbokk yi jullee néew ñeenti kàbbar la jullee néew waxoon nañ ko dar su passé fardu kifaaya la su ñenn ñi jógee pour jullee ko ñeneen ñi amuñu bàkkaar waaye bu ñëpp bañee jullee néew bi dëkk bi yëpp am nañ bàkkaar moo tax mu ne góor imaam a ngay taxaw ca bopp ba jigéen ma ngay taxaw ca digg ba xadis boobu mu ngi ca Abu Daawud al imaamu albani wéral na xadis bi mbokk julit yi ñu daldi di sàppe ginnaaw imaam imaam yëkkati kàddoom daldi def kàbbar bu njëkk xam ngeen ne jullee néew amul nodd amul lixaam lu tax amul nodd amul lixaam mooy noddoon nañ lixaamoon nañ ba waa ji juddoo tey la julli gi des tey la julli gi des moo tax jullee néew du am nodd du am liqaam keroog ba waa ji juddoo walla ndaw si juddu imaam ñëw di ko tudd dafa noddoon ci noppu ndeyjoor liqaam ci noppu càmmoñ tey la julli gi nag ñëw allahu akbar imaam kàbbar daa di def duaa u salaatul iftitaax mooy subhaanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuka wa taala jadduka wa la ilaha gayruk wala riwaaya ba mu mën allahumma baid bayni wa bayna xataaya wala ba ca tegu bu mu mën mu daal di fatiha comme ni ñuy jullee aouzu billahi min alsheytan irrajim bismillahi daal di jàng fatiha ba mu jeex mu daal di beneen kàbbar def salaatu ala ibrahim allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima fi lalamina innaka hamidum majid su paree boobu jàng salaatu ala ibrahim bu day kàbbaraat ñetteelu kàbbar commencé ñaanal bi allahumma ixfir lahu warhamhu wa aafihi waafu anhu wa akrim nuzulah wa wasi madaxalah wa agsilhu bilmaai walthalji walbarad wa naqihi min alxataaya kama yunaqa alsawbu alabyadu min addanas kama naqayta alsawbu alabyadu min addanas wa abdil lahu daaran xayran min daari wa ahlan xayran min ahli wa zawja xayran min zawji wa adxilhu aljanna wa najjihi min annaar waqihi azab al qabr bu fekkee riwaaya boobu yemb na ci moom mu jàng ko wala mu ne allahuma innahu abduk wabnu abdika wabnu amatik kaan yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah allahuma in kaana muhsinan fa zitu fi ihsaani wa in musi an fa tajaawaz anhu ñeenteelu kabar mu ne allahuma laa tahrim na ajara wala taftin na baada wala bu ca jàngul dara bii bu ko defee ci ba muy ñaanal néew bi baax na ñeenteelu kàbbar gi bu ko neexee mu bañ a jàng dara mu ne tekk tuuti daldi di sëlmal asalaamualeykum wa rahmatullah ndeyjoor bu defee benn baax na bu sëlmalee ñaar baax na su boobaa nag dañuy yëkkati néew bi nag tànk yi ñooy jiitu bopp bi nekk ca ginnaaw suñ ko munee teg ci mbagg yi ñoo gën su fekkee nag ca oto lañ koy teg na oto bi jiitu ndax chaque jour néew mooy jiitu nit ñi topp ci ginnaaw noo ngi yem foofu ba subaak jàmm incha allah ñu yegg si buñ koy yóbbu wala buñ koy dugal ci armeel yi wala buñ koy dugal ci pax mi lan la ci lislaam jàngale ñoo ngi jéggalu mbokk jullit yi di leen ziyaara di leen baalu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.